fii de suñu mbokki taalibe yi nga xam ni ñooy waa Touba Kër Moussa ñoo amoon bisu xasida ñun ñu jógee Touba Pout euh, ci kuréel gi ne foofu euh, ñëw teew ci bis bi ngir la ñu doon suñu mbokki taalibe euh, muy toolub xasida boo xam ni murit yëpp ko bokk kenn ko ne am ci waar woo war a bay ñu ñëwoon rek ngir bay si sunu wàll ci bis bi loolu daal mooy sunu teewaay ci bis bi ak sàkku ci ngërëmal sëriñ bi daal. mu nekk mm. bis bi tey. waaw bis bi de yàlla niñ ko gisee mooy ak yokk am na ci ndax itam booy liggéeyal sëriñ bi amul tànk ginnaaw tànk yi kanam rek la am soo gisee melaw daaw wi euh, melaw ren wi gën koo jëm kanam da ngay xam ne ak yokk am na ci zaahir ak ci baatin nag da xam ne pas-pas rek moo ko def ak pastéef ndax jamono kenn ku ne xam ne xat na yitte yi bari na waaye murid sëñ Tuubaa jaral na leen lu nekk ndax moom moom seen lépp looloo waral bis bi tey jii boo xoolee xam ne ak yokkute dëgg am na ci daal yokkute dëgg am na ci daal nga xam ne sëriñ bi tàbbi na ci bu baax a baax te loolu rek moo ci moo ci am solo loolu rek moo ci solo daal waaw xanaa nu gën a waat rek gën a feddaliwaat bu baax a baax ndax jamono tollu toll na foo xam ni moom li gën a gaaw ci defar jëmm mooy xasida yi ndax li nga xam ni euh, boo ko jàngoon ci alxuraan am ko wala nga liggéey ko ci tur yàlla am ko sëriñ bi da koo dëxëñ ci biir xasida yi mooy waral mu gën a gaawee foofa te itam ci lay gën a jàppandee kon na ndaw ñu jublu ci xasida yi ginnaaw bu ñu xamee suñu borom ba noppi nan jublu ci xasida yi ndax dana la yeggale ci yàlla ci ci ci ci anam wu am solo ndax loolu waxi sëriñ Tuubaa la kon nag nañ ci gën bàyyi xel bu baax te gën cee góorgóorlu waaw ñu ngi ànd ak waa axlu kuréelu axlu xasaayit bu puut kuréelu durus ñom lañ andal ñew tew ci bis bi dal ci njital Serigne Fallou euh, Fall moom lañ andal ñew tew ci bis bi dal ndeysaan lolu moy moy moy moy moy moy yittey teewaay bi dal wa no ngi siyaar ñëpp nak di ñaanal bu baaxa baax ci bis bi leen ndokkeel di ñaan ñu fekk bu at yu bare bare bare te ñi dëppoo ci ngërëmal serigne bi ci barkab serigne touba khassida yi bismillahirrahmanirrahim jërëjëf bismillahi rahmani rahim barke laka wa merci Ahmadou Bamba sëriñu sëriñ si laka saraftu jërëjëf wa merci Ahmadou Bamba sëriñu sëriñ si laka saraftu jërëjëf wa merci